ma wax présenté bi ku ñu xam la xam-xam bu yaatu bu rafet ci biir réew mi ci bitim réew rawat na ci mbooloo mi ñun bu ñu xasee benn ci ay baax ci Mahmoud Diop rek ku nekk xam na ne borom xam-xam bàngoogu ku nekk xam na ne borom jikko ju baax jàngoogu borom yitti bu koy bàngoogu koo xam ne professeur la ci Sénégal ci bitim réew yëpp fu ñu xam Cheikh Ibrahim Niass rek xam nañ ko fa mu koy wutu wutu bu mat fukki ci wàll yi yëpp ba loolu mujj doy mbooleem ci bitim réew ñu doy loo ko fas def ko ne moom la mujj nag mu jotee fa mu wutum bàyyi wax jëm doon wax naan Ibrahim demal waxal soo waxee maa wax loolu mooy feeñ ci waxinam mooy feeñ ci jëfinam koy yitteele tabarakallah yéen yàlla dugal fanam yokk kàttanam yitteem yooyu nag biir réew ak bitim réew la bu dégg ba dégg kon ñun bu ñu mënee am ci moom benn jotaay boo xam ne donte benn waxtu la rek lu rëy rëy rëy la ndax koo xam ne foo toll ñëpp a ngi lay yittewoo bu mënee ñëpp nag ñi gën a mag ak ñi gën a ndaw a yem buur yaag sëriñ yu mag yaag ñëpp soxlaal la du ma denc gënet bi benn bis abal na ma fi benn band boo xam ne dafa réeroon ci ay bandam mu laaj ma ma ne ko man ko yore mu ne roi fax dama ko ko laaj daf ko yitteel lool ne daf ko seetaan ci télévision MBC mu am ak moom solo lool mu laaj ko ba xam ba xam ne ko dinaa la ko wutal di ñëw seet gisu ko fekk man ko yore xanaa loolu doy na tegtal ne kon ñu mag ñëpp ci wàllu gi ñu xam ci yëngatu àddina yitteeloo nañu mbiru Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop waaye ñu mag ñi ñu xam ci wàllu diine itam yittewoo nañu kuy moom njëkk tàkkusaan wala tàkkusaan la waroon a ñëw booba léegi mënul ñëw te ndax kenn ci kilifa yi réew mi la amaloon dajeel këram yooyu yëpp ak bëgg a jot ñëw xëy na sax jotul xaar safooram pour mën ko indi nee na moo dawalal boppam bayet fi circulation bi xat na lool moo tax guddi bi waaye waxtuum yegsee rek baax na donte benn minute lañ am ci moom day na kon say baax yi Mahmoud Diop mbooloo ngi moo xam ne wax ji moom waxaat la rek waaye ñoom ñëpp xam nañ la xàmmi nañ la yaay kan ñoo ngi lay waxaat bismillah ci sa kër bismillah ci sa diggante njaboot ci koo fi gis rek jàppal ne sa njaboot bu la jege la donte xàmmeewuloo sax jëmm yi kenn ku nekk lu wér xam na la fonk na la te duñ dañ di la ñaan kon nag ñu ngi lay tatagaatal tey ci sa yoon bu njëkk ci sa yoonu ñaareel nga ñëw fi di jàngale yàlla nañ koy yàgg di def lool nag. mu nekk njàngale mu dund mu dundale mu barke. dara ji leen di ko mos moom lana Cheikh radiyallahu anhu. yaa ngi fekkoon ci téere Ataaj al Jaami' lil Usuul fi Ahaadiis Rasuul. tey jii lañ ciy am at. ñoo ngi ko tàmbali woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre quatre-vingt-dix-sept. dàq ba ca toppoon. ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre Cheikh Mamadou Lamine Ibrahima ñett ñoo ko jàngale woon suba la ñaar fukki fan ak ñeent ci weer yi kon yàlla indiwaat na la ci jamono boo xam ne alhamdulilah doon nañ ma ci léegi ay doomi sàngal ngir defal ko rek ngir yàlla ñaan may ñu ci barke daal muy anniversaire kon doomu tàngal la tey ñu ngi ñaan ay at ci kanam mu nekk tàngal yi fekk gémmiñ amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi kon daal yàlla indi la tey ci sa mbaax nga téléphoné rek ne yaa bëgg a ñëw teewee ci jàngale ni mu tombe ak bis bi ñu ngi ciy dégg lool marhaban marhaban marhaban kon nag attaaj al jamia lil usul ci ahadis rasul tey weer ak juróom-ñeent tey lañ ciy am fanweeri dars ak juróom-ñeent mu mel ni itam ci sa biir njàngaleen tey li ñuy jot xadis bi tax ñu am ñeenti téeméeri xadis ak juróom kon nag téere baan bi bunt bi ñu toll kitaabu salaat la buñ ci jógee ñoo ngi jëm ci bunt boo xam ne mu ngi jàngale ci sifatu masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi amatihi loolu ci tànn rek nag. yaa xam lii la yaa xam.
alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa radiyallahu taala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وض- وكل ضلالة في النار ما نجي لين دي دالو نيو آه، وخي رفتنا رفتنا لول وانت من ميناكو ميناكو في دابا ديغي خلوكات دي wax naan wax ju ñaaw kam jóge la dëkk ma ne waxant ma wax ju rafet la ko xam lu rafet bëgg lu rafet yaay wax wax ju rafet waaye ñun nag tarbiya baay moom ñun ñëpp man ak yéen moo ñu libéré ci boobu domaine moom ndax moom ca euh, rihla euh, gànnaaram ba moo waxoon wal aarifuuna farixu is xumidu walaw bi gayri wasfihim is shahidu daaka min alxaqi fama lam yuridi lama yakun fi masdarin aw mawrid nee na ñu bëri ci jaamu yàlla yi buñ leen waxee lu mel ni éloge dañuy xaw a cristé ngir suufee suufee seen bopp te loolu moo jaadu mu ne aarifoon yi nag buñ leen taggee même ci lu dul seen nelo sax dañuy bëgg ndax kii waxee wax mais ñu waaye ñu ngi koy déggee ñoom ci yàlla ndax lu ko neexut du am Euh, euh, di leen ndokkeel te ndokkeel leen mooy ndokkeel soo bopp ci euh, euh, dërs bi ci téere bu am solo bi at-Taaj al-Jaami' al-Usuul euh, nekk ci xadis euh, atum lëmm di ko jàng toll ci fii ngeen toll mooy wane ne du ñàngam yàkkamti du ñàngam diplôme ñàngam ngir yàlla la li ciy tegtal mooy njàng mi julli dina ko jiitu julli dina ko dagg julli dina ko joxe gannaaw sikkar dina ko jiitu sikkar dina ko dagg sikkar dina ko mujj waaw te itam maanaam couleur yi ak mouvement yi dafa am xadis bu niru te itam foog ñu di ci béggalante ndax xaw foog rajaaw même bi ñu laata yegg fi ñu yegg jaar nañ fa mooy yaakaar ak tiit moo tax nag aarife yi bu guddi bégal bàyyi nee na ma buxaari yu nee na yonent wax na ne inna lillahi ibadan laysu bi ambiyaa wala bi shuhada yaxbituhum al ambiyaa wa shuhada maanaam yowm alqiyamati qalu wa man hum wa ma acmaluhum xata laalana nuxibuhum qala qawmun taxaabu bi ruuxillah min gayri arxamin baynahum wala amwalin yataatawnaha fima baynahum wallahi inna wujuhahum la nuur wa innahum ala la ala manabira min nuur la yaxaafuna ida xaafa annaasu wala yaxzanuuna ida xazina annaas xadis la bu web waaw man jotiwuma ci Buxaari waaye nag bàyyam ma ne Buxaari moo ko wax lu wóor ma ne Buxaari moo ko wax moo ne yonent bi daf ne yàlla ngi am ay jaam yoo xam ne utul wér article ay jaam ay jaam yoo xam ne duñu ay yonent duñu ay sodaaw yu sëy ci xare waaye nag bés peñ ci ay yonent ak i sodaaw sax dinañ leen ñee ca loolee ñu leen jagleel am nag benn saxaabi bu gaaw boobu ne ko ñooñu ñan lañ ak lan lañ def ba egg foofu ndax xëy na ñu bëgg leen mën na ko ay nit la ñoo xam ne dañu xamante rek ngir yàlla du bokk guñ bokk deret a tax ñu daje même mën nañoo bokk sax du ay alal yu ñuy échanger moo tax ñu daje même mën nañoo joxante alal sax yonent waat ne ñooñe muy wax buñ toggee ca booba tëddal lii ci kursi yu leer la ñuy toog seen kanam yi dafay leer nit ñi dinañ tiit ñoom duñ tiit nit ñi dinañ jàq ñoom duñ jàq ma xam ne loolu jógee ci yonent bi ñuy jàng xadis yi julli ak lu dul julli moom itam ab tàmbali la waaw mooy bushra arab dafa taamu bu waajee wax dara lu neex dafay wax baat boo xam ne dafay bégal xol yi ñu xam ne jàmmay ñëw buñ ne bushra laqat rek ñu xam ne lii ñëw si baraatul istilaal te xadis yi ñu jàng nag waxoon naa la ci daaw sama xaatir te loolu itam ci li ma gën a fonkee baaba lamin ci la bokk mooy maanaam waaja dafa jàng fiq jàng ci xam-xam yi soobu ñu yar roxo ga ba mu sujjóot mu am sax lu ko mun a muur te du tax mu muuru mu wàññeeku nag boole zikr ak xadis ma ne mbooloo la moo xam ne incha allah lu mu yàgg yàgg yàgg bu ñuy naq du mbooloo yi di leen critiquer commande doo leen mun a naq doo leen mun a critiquer ndax ñaari mbagg la ñuy naawee loolu mbagg la ñuy naawee sharia ak xaqiqa jaaree ko ci tariqa tariqa du dara lu mooy aw yoon képp ba ma waajo doon jëm contre bay ci Kuwait maamoon na ngi toog sëñ Asa ngi toog waaye ne maam ku nawoon Cheikh Ibrahima Niass la ba ma juddoo ba léegi waaye nag am na ñuy waaj a yàq suma xol ma ne kon na sa xol yàqu waaye nag buñ ko fi tuddagum léegi ndax ñun kii moo la mag ñun ñoo sa maas lañ bala ngaa wax kenn ku fi nekkul saka kooku daal wax ak ñun ba pare suñu defaroo nga laaj ñu ko leen defar bu ñu yàqoo nga laaj ñu ko leen yàq mais teel na pour nga tudd ko waaw waaw waaye nag borom alal kuñ fonk kii ñuy waxtaan nag di waxtaan nag di waxtaan nag di waxtaan nag di waxtaan nag ba nga xam ne yëg na ne moom dafa nekkoon ci njur ndax ma ne ko mu ne ma man sax dama fonk diine lu ne def naa ko mais am naa ay noon ci koy gii ma dëkk ñoo xam ne dañ may xat ba di ma askan sax ne am na ndox yu yàq xel dama koy naan te billaay waxuñ dëgg ma ne ko nañ tudd nag Cheikh Ibrahim bii doon wax xam nga lu ñu jàngal ñun waxuma say noonu ndax noonu waxi noonu du dara ma ne ko ñun buñ la bettoon nga tiim lu bon loolu nga wax nee nañu sama dërs bu njëkk samay doom mooy ne leen alhamdulilahi rabbil alamin bu leen bu leen yàlla seetaan lañu tam ngeen mel ni moom ñaare ba mu ne bu leen ko nett lii di ko reetaan ndax yonent nee na bu yàlla nattoo jaam nga reetaan ko mën na koo may jàmm yow mu nattoo nee nañu sama dërs ñetteel mooy ñaanal leen ko yàlla teggi musiba bu ci kaw waa ji daal di ne roxte carnet carnet chèque chèque daal di remplir ab chèque ndax ñoom xaaj lañ am daal di ci koy jox wala daal d'accord na ci wax ju gudd la nag dama ko dagg waaye bés dana mos a ñëw mën a tëral kon nag mbooloo muy dox ci zikru ak fikru zikru ak fikru di dox ci fanaaw ak baqaaw di jàng alxuraan ak sunna am imam bu ñuy tuddee Cheikh Ibrahim Niass ak ñi mu defaroon daal mën naa dalal xel mais nag lu yàgg-yàgg bu kenn fàtte lool parce que xéewal la goo xam ne fàttu nii te moom yomb na alhamdulilah baari mel léppam ci biir mu ne wa anhu moom abu hurayra moom wala abu zarin comme ku mujj riwaaya abu hurayra wa anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا حديث بي بدوان من إن عفريتا أمنا بن عفريت عفريت في وقيارم mooy mbërëm jinne ci waxu olof man am na benn seytaan boo xam ne ci jinne yi la bokk dinaa ci ñëw tafallata alaya daf maa jéem a sangu bi tafallata alaya mel ni kuñ doon téye nga fittan ñu ko ba egg ci ki nga jëm albaarihata guddi gi passé mu ne aw kalimatan naxwaa ki ko nett li ñemewut wax lu ko wóorul mu ne yonent loolu la wax wala baat bu mel noonu tafallata lépp mu ne pour que julli gi may julli ifrit bi jax-jaxal na dagg julli gi dagg julli nag mooy maanaam fexe ba sa xel génn ca ci li ngay jàng moo ci gën a ndaw ndax bàyyi noonu la teewu teewlu julli yeggul fi koy ni fuqaaw yow teewul aljanna ci sa ndeyjoor teewul saxlo ci càmmooñ mel ni yaa ngi ci kaw siraat mun ne loolu gudd na soo déggee arab daal li ngay jàng nga xam ne yaa ngi koy dégg soo ko déggul nga xam ne yaa ngi jàng waxu yàlla ngir jaamu ko loolu mooy teewlu julli yàllaahu anhu mu ne mu ne fa am kana ni laahu mi mu ne yàlla def ma jekku ko fa am kana ni te jàppandal ma yàlla mi ngi ci moom ma jekku ko moom seytaan boobu wa arabtu ba ma ko jekkoo arabtu an arbitahu ma bëgg koo yeew ila saariyatin ci benn pilier ñu ngi sawaari masjid bi ma bëgg a jàpp seytaan bi nga xam ne presque roox la fekk jëmmuwul man ma téye ko ci jëmm jooje ba mu déguisé mel ni jëmm ma yeew ko hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum bu bëgg setee yéen ñëpp ngeen di seytaan bi waroon jëm a yàqal yeew naa ko yéen ñëpp ngeen xool seytaan mu ne nag ma dal di fàttaliku comme yoon Yàlla Suleymaan mbokkam la yonent ni moom di rasul ni moom di nabi yu ni moom mu ne yoon Yàlla moom Suleymaan ñaanoon na yàlla ne ko yàlla nag ma may nguur goo xam ne keneen du ko am sama gannaaw maanaam xaasiyatu boo xam ne keneen du ko am xaasiyatu bi mooy maanaam yàlla daf ko tàggataloon jinn wa sayra wa riix léegi nag yoon Yàlla Muhammad moom yàlla may na ko li mu ko may yëpp waaye bu jàppoon jinne ji not ko ni Souleymane dafay mel ni kon ñaanu Souleymane nga nanguwul nga jàngee ci ne mag ñi bugguñu muzaahama bugguñu buuxante ngir maqaama yi ki koy joxe wala ki ciy feeñ benn tëjalin du répété yàlla bu répété bu tëjalee wéy na ba taxoon ca min minal mag ñoo jógeen këru fe dall xam-xam maarifa ñuy waxtaan ca masjidu xayb ca ca Musdalifa bàyyi na leen yéen ñi duggoon léegi ci jàkk ji nuyu ma ñu toog bu ngeen di génn ñeneen ñi génn du ñu fi dugg parce que y a un plus da nga de mu ne nag mu fab ko bàyyi jooju xadis Bukhari ak Muslim ñoo ko ñoo ko nettali léegi nag comme njàng la xam nga nit ñi ñaari façon nit lañ grosso modo ñi nga xam ne dañu gëm yàlla doyloo ko waaye jàpp ne mbir yi mooy li ñuy janoon rek jinne gisuñu ko amut roox daanaka gisuñu ko duñ ci wax malaaka gisuñu ko duñ ci wax mais nag dafa am foo xam ne boo ca eggee moom yi nga eggagum doo ko mun a weddi ndax egg nga ca yi nga eggagul itam doo ko mun a weddi ndax du ni yow yaay yaay atte bu ko defee nag yonent gannaaw wax na ne jinne song na ma mujj nekk physiquement lu ñuy jëflanteeg moom ma jàpp ko woon ko ne maa la ëpp doole bëgg koo yeew mu jigéen ma ormal Suleymaan dërt yi nekk ci jumla jooju kenn du ko jaar waaye nag am na ay misaal ci damay obligé wax yenn yu ma bëgg jox ndaxte boo ko waxut itam ñu mel nëbb nga rek lu amoon ba pare waaw nañ mooy tënd ko wax lu amul mais li am nag li mu doon doon luy luy dëggal lii la daf maa wax ne ma dama daan am ay tapage yu ma jinne di tapage ci suma kër moom Mahmoud Diop mu ne benn bés nag lu tuumuranke la waaye ndokk yàlla ay roxaan yi naa fi nekk mu ne benn guddi mu tapage ma ma dàqe ko ñu toogu fu am barke ñii rek yaa ko mën mu ne ba ci wetu sa baaka ma rek ma ne ko ciix mu ne ko bàyyi ma dootuma fi dellu mu ne nag ma xëy nag yëfi sàppi ma nag ma dem ca bàyyi lii ci année trente yi la mu ne ma dem ci bàyyi tawatal ko mu ne bàyyi wax ko ci lu simple ne ah bu ko dolee ni gis mu ne ko déedéet mu ne ko jeex na keroog boobu ba léegi xam nga lu amoon démb amaat tey mooy wane ne dëgg la yonent moom mooy yonent bi mais kenn ci saaba yi Abu Hurayra dañ ko dénkoon fi ñuy denc fukkus beeg yooyu mu ne bés am mbindeef mu ñëw moom nee na tànk ya sax dafa mel ni tànk yi rab waaye lu mel ni nit la ñëw mu gis ko muy sàcc ci dugub ji wala lu mel noonu daal mu ne mu mu jàpp ko mu ne mu tawtawal ko njaboot ak jaaxle ak dootu fi ñëw mu bàyyi ko mu ne ba muy julli ji fajar rek yonent ne ko xam nga mu ne waaw noo defal ki nga jàppoon bi mu ne ko daf ma tawatal njaboot ak coono ma bàyyi ko mu ne ko waa fen na dana ñëwaat guddi ga jot mu defaat la même chose xëy mu ne ko noo defal sa assir bal bari xam mu ne mu wax wax na ma la ma waxoon ma bàyyi ko mu ne ko dafay fen dana ñëwaat mu ne nag bi mu ko jàppaate ne ko foog ma yóbbu la may dem ci yonent ba xam nga ni kon kay jaww jooju seytaane mu fa doole ndax ñoom bu ñu leen jàppee rek seytaane la fay indi ni ñoom moo koy wax boo ko defee mu ne ko nag bàyyi ma dinaa la waxal loo xam ne ku ko jàng ci yéen ñun duñ ko mënal dara mooy ayatul kursi mu jënd liberté ci jàngal ko am mbóot moom itam mu xëy yonent ne ko noo def ak sa assir mënu ko ñëw na waaye nag dama koo tëkku mu daw nag waaye nee na ma nag dootu fi ñëw te itam kursi yi jàngal na ko ne ku ko jàng ci ñun ñoom siyaasin yooyu duñu mën a dara mu ne mu ne ama annahu qad sadaqaka wa huwa kadub mun kaa fenkat la lool waaye nag loolu moom dëgg la moom waaw ayatul kursi yi ku ko jàng moom kenn ko mën na kon nag sëriñ bi jàpp na seytaan taalibe bi jàpp na seytaan jamono dox junne at ak nangam am yu xaw a demee noonu fab sax nga xam ne kon dëgg mooy dëgg rek mu ne wa ani saibi ibni yazida radiallahu anhu qaala kuntu qaiman fi lmasjidi beneen saaba boo xam ne mooy saib ibnu yazid moom moo nettali ne benn bés kuntu qaiman fi lmasjidi maa ngi taxaw nii ci biir jàkke yonent bi fa xasabani rajulun am ku ma sànni ak xeer mooy ku bañ a wax ci kaw te bëgg oo nit xam nga jàkka ja amutoon nii ciment nii tapis jàkkay xab baaw la mu fordaal ne ko nit mu ne fa nazartu fa ida umar ibnu alxataab mu ne ma xool fa xeeroo jógee ndeke sidna omar moo may moo may sànni nii fa qaala tam ne ma idhab fati nii bi haada yi demal indi ma ñaari gaa ñii mu jàppalee indi leen fa jituhu bihima mu ne ma indi leen ñoom ñaar ne omar gaañaay fa qaala sidna omar ne ko min ayna antuma fu ngeen jógee qaala min ahli taif ñun ñi ngi bokk ci waa taif qaala law kuntuma min ahli baladi la awjatukuma su fekkoon ne waa Medina ngeen nga xam ne xam ngeen li xew fii kon tey ma dóor leen dóor yu métti maanaam kon tey ma cawlee tarfaani aswaatakuma fi masjid nabi da ngeen di ñeme yëkkati seen kàddu di wax ci kaw nekk ci biir jàkka ji ñu jàngee ci ne xormay jàkka bokk na ca ku nekk ci biir da ngay jaamu yàllay wax wala jaamu yàllay jëf wala jaamu yàllay xaafir waaye nag doo ko nekk di waxtaan wala nga yëkkati sa baat ci kaw ñu bëri nag respecté tuñ ko am na benn wootekatu yàlla ci njiitu jamono ji ku ñuy tuddee ku demee ni intégriste yu xaw a yàkkam ci yooyu ñëw na fekk gaañ ñaa ngi naafi la ñii ngi julli mooy salaamaaleykum ah gaa ñi continuer seen i jàng ak seen i naafi la ak seen i sikkar seen i amulaat mu nuyuwaat kenn kenn kenn ko mu mu mel ne xanaa yéen du ngeen julli gaa ñi continuer ci yàlla rek ñu def ko ñu jamono nag beneen waay bu bu jaar ci ay loxo ñëw ne ca rafet la rek salaamaaleykum kenn wuyu ko mu ne ah man ndax man jullit la li tax ñi tontuñ la toujours nag ñaari élan yooyu ki foog ne pare na nit ñi dañoo yàqu daf leen war a jubanti bu nuyoo ko ko feyut sax mu ne doo julli ki nekk nag ci yoonu gaañ yi ba mu nuyoo feeñ ko moom boppam la tuuma ab yarin la ab yarin la jàkka duñ ci wax ca kaw fa qaala min ayna antuma qaala min ahli taifi qaala law kuntuma fi baladi la awjatukuma tarfaani aswaatakuma fi masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam kooku Buxaari ko nettali ñu jàng beneen xadis boo xam ne day wane ne biir jàkka dañ koy xormaal an abi hurayrata radiallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man samia ku dégg na bés rajulan benn waay yanshudu dallatan muy yéene lu ko réer ku gis sama kurus ku gis sama maxana fil masjidi ci biir jàkka ji fal yaqul ku dégg loolu rek ku koy wax rek ne ko laa raddaha allahu aleyk yàlla bu mu fay nga xam ne pour yar nit ñi ñu xam ne jàkka du pour loolu fa in yonent ne fa inna al masajida jàkka yi lam tub na tabaxeefu leen li haada ngir lii réer le dara di ko wax ci kaw dégg waaye nag foqaawi ne nañu bu demee bu ca buntu jàkka ja mu jublu ne laajte lu ko réer loolu aayowuñ mais biir jàkka ji nag déedéet kooku muslim moo ko nekk moo ko abu daawud mbokk man kii laaj kooku mu ne kon nag takk si yi ci jàkk yi waaw takk yi ci jàkka yi suñ ko yemale woon ci na nga miinoon ci jamonoy bàyyi la kii xutba xutba ci xutbatul xaajati mu ñetti laay yooyu nga xam ne yonent lu mu daan def rek moom la cay jiite jiite doroo ama baadu door koo def mu xutba ko kii kii may ne ama baadu faana ankaxtuwa iyahu ala sharti kitaabillahi fa imsaakun bi maarufin aw tasirun bi ihsaanin alam nashrah jàng ko barkeloo ko ñu tasaare groupe bi am sax ñu ñaan ñu tasaaroo kooku mën nañ ko def ci biir jàkka mais discours yi xew léegi nag waratu waruñ ko def ci jàkka dara rëglu koo ñaaw te nag li ci gën a li ci gën a garaaw mooy discours yi ci bëri boo xamee ñiy wax xam background yi da nga xam ne yu ci bëri diplomatie rek la waaye yu ci bëri sax da ngay waaw waaw moo tax kooku xam nga daw ko am na sax ñuy orienté ne jàkka léegi ku koy tabax soo ko mu ne tabaxal benn ruq social fee boo xam ne buñ jullee ba pare wasi ba ba def leen buñ buggee takk say wala waxante jàmm ñu dem ba foofa ñu xam ne jàkk sañ ko sulee am na déjà ñu ko commencé appliquer waaw jàkk tabaxee wuñ ko loolu imam muslim ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam lamma salla ba mu jullee bés xaama rajulun fa qaal yonent dafa julli ba sëlmal xadis yenn temps yi dafay gàttal récit ñun amuñu woon jot xam nga ñoom lama salla wa atama salata wa tashahada wa tahallala xaama fa yëpp dafa gudd lama salla xaama rek dégg nga benn waay ne man daa ila al-jamali al-ahmar kan ndax kenn gisul kuy wane gëléem gu xonq gu réer xam nga baat bi dafa mel ni man daa ila jamali ahmar dafa mel ni jumla ju eggagul hal huna man samia man yadcu ila jamali ahmar ndax ku fi ku kuy ndax gis nga kuy ku gis gëléem gu xonq ba mu ko waxee noonu rek fa qaala sallallahu alayhi wa sallam laa wajadta yàlla boo ko gis xam nga kooku dootu ko gis wala bu ko gisee gisul la am solo innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu jàkka yi dañ leen a tabax rek ngir li tax ñu tabax leen mooy lan wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan masalaa ngi noonu nag ci jamono ji jar naa taxaw tuuti une minute wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan dafa am ñu ci dëgg ne fala tad'u ñi ngi ko firee fala tunaadi te fala tad'u mi ngi firi fala taabudu xam nga bokkul moo tax boo ne yaa rasulallah ñu ne mushrik ndax yàlla moo aaye fala tad'u ma allahi ahadan bul wax yaa rasulallah te fekk déedéet fala tad'u ay la taabudu ibadatu gayrillahi nag moom ci jàkka ji aaya nañ ko waaye ci fulu jàkka ji saf aaya nañ dégg kon nag nidaau ak ak duaau fa muy firee ibadatu ñii wax ci l'islam fi mu ne surtout ñi nga xam ne ñoom dañu ñàng jàpp ne dañu ñëw pour ñun ñu tuubaat ci seen loxo war nañ koo set mu ne wali salaasati ñeel na ñett ñi Bukhari Muslim Abu Dawud tur Bukhari Muslim tur ah Turmuz déer ci borom téere yi ñoom juróom la ak juróom benn mais ñett ñi buñ ko tuddee rek ñoom ñett ñooñu la nee na yonent nee na man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina bi nablin falyahfud ala nisaliha bi kaffihi la yaqir musliman waaw nee na man marra ku romb na bés fii shay'in ci côté bu mun di doon min masajidina suñ jàkka yi aw aswaqina wala suñ marché yi bi nablin ci ak fett koo xam ne ñaw ñawan ca fal yaxud ala nifaaliha bum jubale ñaw ñaw ñaw ñaw ka ga nit ñi na jàpp ca ñaw ka ga bi këpp yi na téye fay gaañ na ko téye moom laa yaqir musliman bum ci loj jullit maanaam dañu bañ nga dugg ci mbooloo amee loo xam ne léeg-léeg nit na ci dës mu gaañ ko ko defee di yaa ngi koy xamee fi mu ne ci aj ñi amee parasol yi am na nit ñu baax ñoo xam ne fuñ toll ci jamra yi ak yi ñu ngi naan wàcce leen parasol yi ñii di ko wax ci naar ñii di ko wax ci pakistan yi parce que parasol lu garaaw la am na ci kaw la ku tudd nangam sàmb yal na ko yàlla yërëm kii loolu moo ko jël bu baax lool dafa doon fooy benn waaye nii rek di ko xupp rek parasol ba dugg fii rek ba nëb ba ci la doxee de yow dafa daan bañ alayhi salaatu wasalaam ngay xupp nit ci luy gaañ ah déedéet boo ko seetloo kon texte yëpp daf lay doolee confirmé ne li ñuy wax xay ak civilisation atte l'islam yi dëgg dëgg dëgg da nga koy fekk ci biir ci façon bu nit mën a respecté waaw bu fekkee ne da ngay xupp nit am na góor bu ma gisoon Medina bu yàgg boobu ñu ngi ci daara ji benn waaye di ko xupp jëmale ko fetal góor gi ni wu xët daw waa ñu ne ko dara nekku ci mu ne ko kon nga jubali ko fu dara nekku parce que yónnante ko aay waaye itam nit itam daf ko war a daw bu mu ca lor julit bu mu ca ray julit an jaabirin solo nañ jëlee ci jaabir ibnu abdillah radiallahu anhu mu jëlee an nabi ci yonente bi alayhi salatu wassalam qaala nee na man akala ku lekk na bés al basala oño soble wal suuma ak laay wal kuraas ak beneen beneen xeetu kii beneen xeetu euh, euh, lu mel ni ba lu mel ni barator courage nga xam ne day soppi xeetu xeetu gémmiñ ku ko lekk ba sa gémmiñ soppeeku fala yaqrabanna bu mu jege mukk masjidanaa suñ jàkk fa inna almalaikatu tataadda mimma yataadda minhu banu aadama ndaxte xet bu naqari ni muy loree julit noonu lay loree itam malaaka yi ni muy loree doomu aadama noonu la ko malaaka yi bañee foofu ñu déggee ci ne ndekete lu bari mi ngi am léegi nit ñu foog ne pratique bu tey la fekk am na cosaan xam nga nit bu wéetee di jaamu yàlla taal cuuraay xam nga dafa mel ni taal cuuraay luxe la mais taal cuuraay nekk am na cosaan ndaxte malaaka mi bañ xet gu naqari bu gën a xet gu neex te ulama bi danañ jàkk dafa bëri malaaka lu ma ta bàyyi xel la di leen doo buuxanteeg ñoom parce que diggante malaaka ak ibnu aadama xam nga ñaari feeñwaane yoo xam ne bokkuñ mais itam sorewuñ am na ku mës a ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaw ma Hamza la xaw ma ne ko man munaafiq laa de mu ne ko wax nga jàmm lu xew mu ne ko buñ toogee ci sa kanam yow yonent bi nga di ñu waa di ñu fàttali àllaaxira ni ñuy mel suñ delloo suñ kër ba ci suñ jabar ak suñ doom yi dafay soppeeku te ku am ñaari taar yu bokkul rek naafeq nga yonent bi ko dee du loolu de ne ko ne ko hakada wa hakada nit noonu la ay hoo ci baala mais nii ngeen di mel su ngeen toogeeg man su ngeen ci continuer woon bu ngeen fi jógee kon malaaka yi dañuy nuyuwante ngeen ci mbedd mbedd yi tax nga loolu taxul nit jóg moo tax nag barrage bi dox diggante malakiyatoog aadamiyatu sell gu am ab dafay génn nit ci aadamiyatu te ñenn ñi sax fi ñuy jaaree bañ di leen tuddee dox te bàyyi ne la pourtant dox yonent sax bañ ko ne dox gaa yi pourtant wax nañ dëgg waaye nag dox gu dox gu nitee la doxoon
jàngale mu réy nga ko ci ñëpp nag tey ndax dégg naa léeg-léeg yi wax naan dañuy bëgg a delluwaat ca fanaaw bañ tàmbalee woon léegi mu ni jàllale sax wala dañuy dellu ci leneen loolu moom wéy na an jaabirin kon qaala man atera al basara kon nag xet gu naqari ñu di ko bàyyi xel ndax yonent bi nit ñëw na lekk mu ne koo demal lii nga lekk mu xeeñ ni demal bul ñëw ci jàkka ji luy tax nag yonent génne nit ci jàkka ji indil na ko yonent jullit du ko fekkee kon nag jàngale bi moom tey lañ ko repratiqué ndax tey la tey la oignon gën a tasaaroo dañ ko sax greffé mu gën a rëy ak mboolem yooyu yëpp mais nag ulama yi boo ko sax nee nañu soo ko sotte woon soo ko sotte woon ba lakk ko xëy na mu wàññeeku gis naa sax ci ay pharmacie Arabie Saoudite ñu ne laayal ci boppam comme dafa am ay vertus thérapeutique dañu ko defar ba di ko jaay génn ci nag la ko waroon a xeeñal yëpp ay pexe la parce que muy soble gi yëpp ñu wax ku ci nekk yonent mës na ko tudd alayhi salaam wax jëriñ bu muy jëriñ doomu aadama am nag ay médecin ak physicien yoo xam ne dañu itteewoo mboolem lu yonent waxoon tam aju ci seen domaine u xam-xam ba am na ko wax docteur Qadi professeur Qadi ma nga nekk Amérique xaw ma Californie fexe na ba génne ci xabba sawda wala ñuy wax grain noir pour simplifier wala nag gila sa teeba génne na ci garab yoo xam ne mi ngi ko jëlee moom ci li yonent waxoon am na yum ci composé ba nga xam ne nee na day yokk nit résistance plus de cent quarante fois kon nag yonent bi rek mooy ki nga xam ne nit ñi war nañ ko boole ci seen i jàng waaw terewul nag xet bu naqari ga moom nee na buñ ko dugal jàkka nga jàngee ci itam lu ne day am jalaal am jamaal soo mun a jël jamaal ba te mu ci ca jalaal ba ko itam loolu ba tey dégg yàlla ci la bokk bon mu ne am na beneen xadis mu ne man akala min hadihi albaqalati fala yaqrabanna masajidana xata yazhaba riixuha mboolem meññet yooyu jógee ci suuf te naqari xet muy laaj ak yi ñu waxoon nee na ku ci lekk dara rek bul jege suñ jàkka yi mooy jàkkam jàkk jàkka yi ca pegg Medina jàkka yi ca Makka bu ko jegee xataay sabari waa ba ngelaw ba xet ga def kooku juróomi téeri xadis yëpp ñoo ko nettali muslim ñëwaat ci ak nasaa'i mu ne xaara waxoon na umaru radiallahu anhu fi xutbatin ci xutba gum doon def ci jàkka yonent bi ba mu nekkee xalifa ne ayuha nnaas taakuluuna shajaratayni laa araahuma illa xabiisatayni albasala wa suum yi mu ne ee yéen nit ñi yéen a ngi lekk ñaari meññetu ñaari garab yoo xam ne man daal li ma gis mooy du meññet yu baax maanaam du meññet yu neexet loolu ñuy firi foofu ñu ne ko mooy la mu ne mooy soble ak laaj mu ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mus naa gis yonent bi wala daan naa gis yonent bi ida wajada rihahuma min arrajuli su ko ñaar yooyu masaa xeeñ ci kenn ci ak nit fi masjidi ci biir jàkka ji amara bihi mu joxe ndigal fa uxrija ila albaqi ñu génn ko jàkka ji mu dem ba baqiyo faman akalahuma ku ko lekk ku leen lekk ñoom ñaar ci yéen fal yumithuma tabxan na rey xet ga ci togg gum koy togg xam nga Omar nag yàlla mayoon na ko ndax bi muy dëddu àdduna di lekk lu ñagas atam xiif ba ba mu ne waa këram bu leen ma toggalati bu leen ma joxati lu ma suuf leen ma jox rek lu yem lu ma téye parce que nit ñi ci xiif lañ nekk te ku xiif mun te déggoo ku suuf waaw muy régal bu jar xam waaw ma révolutionnaire yëpp yeggaguñu ci nit déggoogu ci yërëm nit ak xam lu ñuy administré dañuy wax rek waaw waaw léegi nag waaye bés nag muy melal ñu ne ko yow xamuloo lekk yi muy enkañ xam naa te daal di melal benn plat rek plat boo boo ko déggee dama ko ràbbee rek nga xam ni kii chef cuisinier la waroon doon cordon bleu kon nag moo tànn rek bañ a lekk waaye xam na lu ne xam na nu ñu koy defaree ñu ne loolu mooy dëdduwaat bi nga da nga koy mën a am nekk fa ñukk waaye bu fekkee amoo dara kay dëdduwaat bi waaw maandu bañ a tooy mooy nga mën a dara ba pare bañ a tooñ waaye boo xamee ne mënoo dara ku la ëpp nga daanu kooku yow du taxaw ji wax waaw moo tax ñu bëgg waa ji noonu azulmu min chiamin kada fama fama fayin tajid da isfatin fali illatin la yuzlimun am na ñu ñu am jàmm yu bëri fekk sax du jikko yu baax dañoo xam ne mënuñu dara quoi buñ ci duggee itam du sant léegi nag ñu génne ko mu jëm baqiyu baqiyu googu ñi fi dem màkk ñëpp gis nañ baqiyu fam nekk ci ca ci ci ci ci càmmooñu ku taxaw jublu penku ci biir jàkk ji la mooy fañ suul ñu bare bare bare bare bare bare bare mais li tax di ko jundi fii ba tey ci mojisaar yi la ndax dafa mel ni Seydina Ousmane radiyallahu anhu yonent bi mës na ko wan ne dinañu dem ba seen diggante kenn du fa dox te yonent ñu ko suul ci néegam bi jàkk ji fekk ci muy sew sew ndax yow suul ñu ko ci jàkk jàkk ja ko fekk dégg nga bu ko defee Ousmane ñu suul ko ba xew xoolal tey màbb nañ mboolem tabax yëpp ba boo taxee ci ci buntu xab xab yonent bi rek di seen fa seen Ousmane loolu itam lu jar di wax la waaw waaw aywa ma ne xanaa moom itam jàkka-jàkka mu di tekki ci.
waaw waaw yaakaar naa ko yaakaar naa ko parce que xam nga jàkka ji yokk ndax yonent bi fi mu nekk xam nga xam nga xikmatu bi mi ngi ci ci qaayida diine la ab yonent fa mu faatoo rek foofu la ñuy fàkk rek suñu ko amuñ sax ñu ko toxal kon nag moom foofu ña doon yokk jàkka ja ñoom bu fekkee ne mu nekk ca jàkka ja vraiment catastrophe la comme ni ko nit ñi waxee ñoom ñi yar ni kon xanaa duñ ko fa dugalaat bu fekkee dugal nañ ko fa xanaa taabiina duñ ko fa bàyyi ak taabiwa taabiina ba tey jii moo tax masala mu jara jàng la am na ñoo xam ne jàkka ju bàmmeel nekk rek ñu ne daganut ñu julli fa am na ci nit yàlla ñoo xam ne rus nañu seen diggante yàlla discuter problème boobu ngir yónnante ak jàkkaam ju ma tax bu ñu fekk ci bu ñu waxee rek dañuy noppi parce que quand même di bëgg-bëggu yàlla di xam-xamul diine ba dugal ci wax ju mel ni kuy critiquer yonent ak waa kanam ñun bokkuñ ci ñoom danga mu ne wali tirmisi wa nasaa'i naha nabiyu naha tere woon na daan na tere annabiyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam an tanashudi al ash'aari fi masjid yonent ba tey ci fonk jàkka dafa daan tere ay arab toog ci biir jàkka ji ku ne di jàngal sa morom xasida bu kii incha de kii incha xam nga incha du mooy nettali way incha wu nag mooy defar way tanachada nag mooy kii wax na kii wax maanaam kii wax kii baaru ko wala nga wax ko sa xibaam wax la xibaam loolu tere na ko ci jàkka ji ñu ne nag li tax mooy way temps boobu ñaare way fugarewante ngir gi moo gën gi wala nangam ñaare daf daan am ay xas ak yooyu waaye ñu ne bu deen way yoo xam ne lu baax rek a ca nekk kon aaye wuñ ko mën naa xam wa an al bayi wal ishtiraai fii daan na tere itam kuy jaay ba jaay ci biir jàkka ji kuy jënd ba jënd ci biir jàkka ji loolu yoonu seen nee na woon daal xadis ba le woon innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu ci ixtisaaraat yi nga xam dafa yaatu la jàkka li tax ñu tabax ko moo tax ñu tabax du marché du dispensaire du fenn wa an yataxallaqa annaasu yowma aljumuati qabla salaati daf daan tere itam julit ñi def ay géew ci biir jàkka ji bésu ajuma feeg julliwuñ ba pare ah c'est parce que ñëpp dañu war a jublu penku def ay sàpp ku ñëw xam nga li war mooy sàppe sa feesagul te ngay dem ñu lu bëri njaan njaan yi def sàppe sële sàppe de feesagul nga dem def sàppe fële pour bañ a tàng wala yooyu déedéet da ngay dem ci sàppe si ba mu fees waaw ndax fi nga xamee ne feesu sàppe am na solo ci l'islam mooy tax na yonent bi daganal lu tere woon ndax jéggi sàppe yi dem ci sàppe bu nekk ci kanam dañ koo tere saxab bi riqa mun waaye nag boo séenee yër yër bu kenn mëdd yow jéggil donc dafa li tere woon pour dem feesul ko imam Suyuti nag ne doy na ci rek nga xam màggal mbir bu taxee ñu digal la luñ la tere woon muy xaalis wa taxallaq annaas yowmal jumaati qabla salaati waaw mais woy rek aay wuñ ko mais woy yoo xam ne uti nag diwaan yi bàyyi daan jàngulu ci biir jumaa ji loolu waxuñ ko waaye nag tagg Kisra tagg Kaysar xasta noonu loolu déedéet léegi mi ngi ñëw ci sifatu masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam fii ahdihi jàkka yonent bi alai sallam nam meloon ci jamono yonent xam nga bokk tamit métti loolu la lay jàngal ci taarix mu ne an ibni umar jëlee nañ ci abdullah ibni umar radiallahu anhuma anna al masjida naka jàkka yonent bi kaana nekkoon na ala ahdi nabi ci jamono yonent ba sallallahu alayhi wa sallam mabniyan ci luñ tabaxoon bi lébi ni ci ay mondo ci ay muuli ban su doon benn labinatun lay doon boo ne labin nag jins bi nga wax comme baqaratun ak baqarun wa saqfuhu te téegam ma boobu aljaridu mooy cég céggu tàndarma yi amutoon tuile amutoon zinc amutoon béton armé wa umuduhu kanoom ya xasabu naxli ay banti tàndarma la maanaam datti tàndarma yi ci lañ dogoon def ko muy pilier ñu tabax ko ban dali koy xëddee ak jëridu naxli suuf ko di bay simple am na sax benn kooku yaaram bu musa ñëw di wax ak gars yi ba saw jël mu coloo ci biir jàkk yi gars yi jóg na dañ ko yonte la tudrimuhu bu leen ko bu leen ko bu leen ko gaañ bàyyi leen ko saw ba pare parce que téye saw xam nga médicalement parlant ku ne xam na ni baaxul te yonent moom nit la ku yàlla xamal luy jëriñ nit mu ñu bàyyi booy mun a sotti nañ di ndox rek ndax dafa mel ni lisaanu xaal dafa wax ne kii fa mu jëm bu fa yeggee dinañ dem ba jàkka ji kuñ newoon sawal sax doo fi ñëwee saw demal léegi jàkka yi Madina mun a war a fa mu ne même climatiseur yi ngeen xam sax amatu dañu def benn conduite d'eau boo xam ne xëy na diamètre ba ëpp na fii ñu indi ko xaw ma plus de dix kilomètres xam nga daal bu ñu ko liggéeyee ci suuf jàkka ji ba léegi dafay pilier bu ne dañ ko defal ay bën bën yu yu ndaw ci ci suuf boo xam ne dafay filtrer benn climat boo xam ne lu ñu ragal-ragal sedd attan nga ko lu ñu ragal-ragal tàng ma nga jàll man ingénieur ba moo ñu wëral loolu pendant deux deux heures de temps di ñu koy expliqué may sant yàlla ndax foofu dafa tàngoor ñun dañ ko daan upp jàkka ji booba umuduhu xachabu naxli falam yazid musu cee dolli fii ci jàkka ja Abu Bakrin Cheikh Abu Bakar nekk na xalifa ba jógee fi yàggu fi nga noonu yokkul jàkka ja nam yemam la yokk parce que Abu Bakar priorité am nekk doon yokku jàkk ma tax xam la priorité am moo doon l'islam génn Medina génn jazira ñooñu commencé woon murtad ba am ci sax seen benn càcco naan ataana rasulallahi ma dama baynana faya li ibadillahi ma li abi bakrin ayurisu abakran yonent lañ doon topp bi mu fi nekk ba tey waaye nag aboubacar moom lu mu ci doon xanaa buñ ko toppee lu mu jógee bëkk la koy yokk jàpp ne dafa am doom bi tudd bëkk mais yàlla dimbali na ko ba xuru bu nit dësi yàlla may ko ci ndam musaylima toog sa jaax rek ñu mel ni ñoom addina maanaam taarix war na leen l'islam tasaaroo ba egsi fii ba bàyyi naan waqad saara fii na muslimuuna wa indana lil aqtaabi xatnun xabu kanzan falsama ñooñu kan mënu leen a fay moo taxoon bàyyi ci aju mujj nee na ma nee na ma am na ku ko ne bul waxati ne da ngay ziyaara si yonente bi neen damay ñëw ci jàkkaam te itam bul waxati sayidina yow yaa ngi wax rek sayidina del wax muhammad bàyyi na ko yow yaa moom loolu waaye man man man man bala ma wax sayidina ci yonente bi sax dafa teel damay commencé ca naafi sayidina naafi nee na sayidina abdullah ibn umar nee na de de sayidina nee na ma ma malik nee na sayidina omar sayidina abdullah ibn umar nee na yonente nee na ñoom ñëpp ñooy sama saadatu ba may laata exception bi mu ne ko